déggan nga ci suñu kër gii di Faaida TV bala ngay seetaan vidéo bi ñu ngi sàkku ci yow nga abonné te bul fàttee bés ci cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ci kër gi nga mën cee jot bul fàttee zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kese la leen di jural mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa kër gi ak waa jotaay bi yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi suñu xalifa suñu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane di ko siyaara ko sargal di ko ndokkeel ci bés bi waaye it di leen bi teg ci loxoom nuyoo ñu di nuyoo suñu baay ji toog fii nga xam ne defe naa suñoo teg tànk fii ci kër gi te fekkuñu ko fi mm-hmm. dalal ñu ñu waxtaan ak ñun <coughs> di am mbégte it ci gisewaat yi nuyu kilifa yi ci tool yëpp nag mënuñoo lim ñëpp <coughs> waaye képp ku fi teew rek ci ay kilifa ci njabootu maam Khalifa ñu ngi lay nuyu képp ku fi teew ci kilifa ci njabootu maam Abdoulaye Niass ñu ngi lay nuyu <coughs> euh, di nuyu it ñi nga xam ne dañ leen fi fekk te ñu bokk suñu njaboot ci wàllu politik moo xam ñi nga xam ne dañoo yor ndomb tànk ci parti bi te sëñ Diagne mi teewal leen fi ndax sëñ Bosse dafa sori moo xam ñi nga xam ne yoruñu ndomb tànk waaye taxawee ci liggéey bi. taxaw boo xam ne àdduna yëpp gis nañ ko te ma mun cee lim sëñ Cheikh Tidiane Niass mi jàkkaarloog man di am mbégte teew fii nag ndax eh, ay fani fan ci gannaaw bi may jotee carton d'invitation bi ci laa woote ne dinaa ñëw bu soobee yàlla bu ma amoon bu ma yónnee woon sax carton d'invitation dama fekk ma fi ma ànd ak wér ak tal dinaa ñëw rawatina nag bu ñu amee yéeg-yéeg boobu ba xalaat ma ba yónni ma carton d'invitation loolu tax ñëw bi mënutoon ñàkk ndax démb ci guddi lañu teer ci jóge Casamance ak si waaye bi ma jokkoo ak sëñ Cheikh ñu waxtaan ci la ñu dëppoo ni nañu bàyyi ba mu xaw a gën a dal ñu doog ñëw ngoon si ñëw ziyaara ndax ñëwoon nañu ànd ak coono eh, te it ëpp ci samay àndandoo yegg seeguñu woon ñoom ñu nga Casamance daanaka fi mu ne nii tey la ñu xëyee Casamance ñëw xaar ñu daje fii kaw la muy ñii ngeen gis sama sécurité bi yëpp ñu ne woon kon demee na noonu nañu bàyyi ba ngoon si ñu doxoon ndànk ñëw ziar ñu ngi am mbégte bi ci ñaan yàlla lépp lu ay mbébét lépp lu waay ñaan lépp luñ doon jublu ci ziar bi yal ko yàlla nangu ci barkeem borom bi yàlla nañu yàlla may lu ëppal sax suñuy jot sama diggante kër gi nag mu ngi commencé yàgg ndax defe naa musuma dugg Kaolack te teguma tànk fii ñëw ziar ubbeeku waaye musuma fee ñëw tëj joxuñu ma cëru doom ci kër gi. loolu moo tax ñu am say say ñëw saa suñ ko bëggee. ci ciy gërëm kilifa yëpp nag ndax bu doon dañoo ñëw fekk fi safaan bi ah amaana dina ñëw de dañ ñëwaat waaye lu ñuy seet seetal ko lii sëñ Cheikh Thioro Mbacké wax léegi mooy li am nun dañoo nekk leneen politique doog ndax ñun ñëpp dañoo am gëm-gëm ay jullit lañu. politique sax daanaka lu ñu dab la. waaye dañu dañoo juddu nekk jullit. te gëm naa ni moom la ñuy yóbbaale it. incha soobee yàlla. moo tax lépp lu ñuy def rek dañ ci seet lan moo ci orma ak lan moo ci lu dëppoo lu xel waaye lu charte mën a nangu ci diine moo tax bi ñu ba léegi. li mu wax da koo fàttali rek dañoo teel a wax ni ñun politiqué wuñu ji ku xamul diine rek moo koy fonto ku xamul diine mooy jàpp ni lu ñu mën a fooye la di ko jëfandikoo ci loo xam ne àndul ak gëm-gëm ngir rek ay poñetu àjjuna yu wër waaye dara jaru ko moo tax biñ ci duggee lañu ne ñun politiqué wuñu diine gi suñu nekk politiqué wuñu diine gi nag mooy suñuy kilifa diine ñun ñoo leen war a njëkk jàppale ba duñ leen jamee lenn li ñoo leen war a njëkk a jàppale ba leen jamee lenn li mooy moyetu di leen essayer def loo wala di leen essayer wax loo waaye di leen essayer jëfandikoo ci loo xam ne mën na tax lenn ci nit ñi bët bu ñu leen xoole woon wàññeeku loolu ñun ñoo ci war a jëkk moo tax suñu ñëwee ci këru diine yàlla dafa def réew mi dafay doxee ñaari tànk tànk yi nga xam ne ni tubaab di wax wàllu temporel wala ñu mën koo wax wàllu zahir ñi nga xam ne ci loolu lañuy yëngu mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi nga ci mbirum état wala politique wala yu mel noonu ci kilifteef laa wax de réew mi dafa yëngoo ñaari tànk beneen tànk bi nag mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi te yàlla teg leen fi ñaar yooyu faw rek ñuy jokkoo di jëflante di demlante di waxtaan waaye ci dëgg rek ci dëgg ñaar yooyu foog ñuy xamante looloo tax ku yëngatu ci li ñuy lëng yëngatu ba yàlla andi la fii nga ne bu dee démb ba ngay door kenn xamu la nga doon sol sa dàll dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ngir ñu xam la nga xam leen rawatina tey nag boo demee ba bu ñuy lim ci fa ngay yëngatu mu ñu lim ñaar te boolewuñ la ci loolu yàllaa ko def kon dafay jaadu ñu gën dëgëralaat suñu diggante ak beneen tànk bi nga xam ne bu manqué réew mu amaana du dem looloo tax ñuy ñëw seet si kilifa diine yi bi mooy ñëw dénk leen suñu bopp sàkk ñaan ndax am nañu sañ-sañ boobu nag waaye du lenn loo xam ne dañoo ñëw pour wax war génne mandarga naan si kilifa diine gi ñun la àndal wala ñëw ut si ab kàddu guy jib bu ñu mën a ne ah kilifa gii leen ci li mu wax dañu déggee mooy sonko la wala diw la déedéet loolu du suñu cër ndax seen njaboot gi nun am na luñ ci am. Mm-hmm. yaa moom lépp. am na luñ ci am. yaa moom lépp. lépp yaa ko am naa njort nag ni kenn ëppale wuñ ci. yaa moom lépp. am na lu ci am. waaye am na lu ci keneen am. keneen am ci leneen. loolu ci wàllu politique la. loolu loolu ci wàllu politique la. waaye nag boo dajalee li kaamil yëpp ci loolu yéen a ko am yéen ku ci bokk ci kii ak ci kële yëpp yéen a boole ñooñu muy seen njaboot te waruñoo fexe ba njaboot googu am. lu ñagas seen diggante loo xam ne day jóge ci manipulation politique moo tax tànk yi ñu fi andi tànk politique léeg sax dañuy hésité lu bëri balaa ñuy ñëw ndax xam ngeen lii ngeen gis ci buntu kër sàkkuwuma ko yónneewuma ko waaye yàllaa ko tuddee noonu ay armeel sax su ma fa duggoon fekkee fu ñuy robee balaa may génn lii am xamuma ci dara ñuy ñuy sàkku nag seen compréhension ndax bu ñu comprendre rek di nga ne dafa ñëw kër gi di fi politique fekk loolu sàkkuwuñu ko suñu sañoon dañuy dox ci loo xam ne ci sirru lay doon ñëw dugg def li ñuy def dem suñu kon këru diine këru ñëpp la loolu yàllaa ko def ndax kilifa diine ñëpp am cër ci moom ñi mu bokkal diine bokkal ak bokk ak ñoom deret mën naa ne ñoom am nañu ñett wala ñeenti cër ci ñoom waaye keneen ku ne am nga ba ci ñu bokkalul diine sax am nañ cër ci nitu diine mooy cëru réew mi ñu bokk te ñoom ñu fiy kilifa moo tax ñuy dalal xelu ñi fi wax ñëpp tey jii de gannaaw yàlla gannaaw yàlla gisuma lu ñu mënoon tere ñëw fii ci kër gi di suñu kër te kenn ëppalewuñu fi ñëw ziyaara ci jàmm ak dal ak teggin delluwaat ci jàmm ak dal ak teggin gisuñu suñu bëggoon a dem julli ji ci jàkka ja ci jumaa ja gannaaw yàlla gisuñu lu ñu ko mënoon a tere ndax nag ñu tere ma kër gi moo gën a yomb ci tere ma jumaa ji ndax wa anna al masajida xaasatan voilà fala tad'u jumaa ji moom donte maa ko génne ci sama poos tabax ko waaye bis bu taxawee ëppalewu ma ci beneen jullit bu ñëw ci teggin ak dal jul pour julli rek dem yoonam kon loolu ñoo wax ko kilifa gi ne ñëw gi mënutoon a ñàkk ndax bés bi jar na ko kër gi jar na ko kilifa yi ngeen doom jar nañ ko waaye nag rawatina bu ñu yàlla boole ci njaboot gi ay nit ñoo xam ne gëm naa ni fu ma daanoo ñu daanu sëñ Cheikh mii jiite ci ñu koy seere ci kanamu ay mbokkam gor la garmi la ku neex àndal mm-hmm. te loolu li ñuy yëngatu lu jafe la léeg gor na garmi la ku neex ànd ak te lu mu gis luy defar ma nga ca lu mu gis luy yàq mu mu teel ci at te ñu mel ni moom bari nañu magam jaa ngi ñi toog ak ñeneen ñëpp nag mhm. kon di jóge Arabie Saoudite ak ñeneen ak ñeneen waaw kon kóllëre gi ma gi ma gi ma am ak lew na mhm. suma gannaaw yàlla lu ko mën a dog te yàlla du dog lu baax kon du dog soobee yàlla. macha allah kóllëre googu moo tax ñu ñëw tey. macha allah di jéggalu ci guddal kàddu gi ndax xam nañ ni bés bi xat na. te xadara bi léegi mu door wala door na. moo tax ñu ne rek nañ ko tënk foofu. di dellu gërëm ñëpp. di sant ñëpp ñaan yàlla mu may ñu. ñu teewaat ñu teewaat ay ati ati bés bu ni mel yàlla may ñu luñ fi ñaan rek mu doon lu nangu yéen ñii di suñuy kilifa yàlla ni fi yàlla bàyyi ànd ak wér gu yaram di ziar nag balaa ma koy fàtte seen Cheikh Omar Niass mais nga xam ne it defe naa àdduna yëpp xam nañ sama diggante te muy doom ci kër gi ñu koy gërëm bu baax ci teewaayam asalaamaaleykum wa rahmatullah